El Hadj Assane Gueye tiis ak naqarati ci yéenekaay yi ginnaaw bakkan yu rote woon géej ca wakaam ci tukki mu jaarul yoon dawal ak dawalin wu jaarul yoon nit defati na jéye démb ci tali bi ñaar fukk ak juróomi bakkan rot diggante Louga ak diwaanu Ndar observateur xëy gaaral listab ñu ñàkk seen bakkan ñëwaat it uh, ci jooyi gune yeeg xol tooy ak sago gu ñi nga xamante ni ñoo rëcc ci jéy ji di rescapé yi source aané maire bu diwaan gi di mairie ca Podor xamal na ko ne gën caa ñaar fukk ak juróomi bakkan rot nañ ci accident bi ci yéenekaay bi gendarme yi ne pneu woto bi ci boppam ñoo baaxul ba mën a daw ci taw moo waral it bis bi daal di tarxiis saaraan dal ci garab suñ ci tegee nag wote yi nga xamante ni ay xotti wote lay doon moo waral sax bi jéey amee ngeen gis juugu weñ gunu dajale accident bi am deret yu bari tuuru ci ñu teg ca l'hôpital boo xamante ni tanewul wote ba ci direct ñëw suñu jàng ñàkkum scanner service accueil ak urgence bu jaarul yoon banque de sang di fu nuy mayee deret it bu doxul nam ware yéene kaay bi ci weneen wàll di laaj ana 23 ñaar fukk ak ñetti mesures yi nga xamante ni nguur gi jëloon na ko ngir dakkal mu ne deret yi tuuru ci tali bi les échos gis ne lu ëpp tuuru ca nag accident démb bi booy tolloog ngeen saax ci Louga ëpp na kenn ci ñi rëccee ci accident bi ne chauffeur bi ci boppam moo doon xelu xelu yu jéggi dayo woto bi rëcc ko maanaam contrôle véhicule bi ci yéenekaay bi monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome di ci xamle it ne boo jàngee carte grise woto bi la war a def ci lim ak la ca nekkoon dëgg ëpp na am na surcharge ak fukk ak juróom-benn di client Sud Quotidien ne na woon foo woon rek ci tali bi ci Sénégal ci démb nag li ci gën a mooy ñeenti gone yi ci ñàkk seen bakkan ci accident boobee la tribune ñëwaat ci limëb ñi faatu surcharge bi bi laaj ana mesure yi gouvernement jëloon bi jéey ju ni mel di am ci Bougane Gueye ci yéenekaay bi ne yëf yi day dem ba nuru sax ne kilifa yi dañ caa jéemul dara président Macky Sall moom ñu jàng ci yéenekaay bi ne ginnaaw bi mu ko tiisoo jaale njaboot yi mu ngi sàkkuwaat ci ñëpp rek ñu boole ci yëf yi mooy toog fàggandiku yéenekaay bi di réew mi ne jéey jeneen juróom-benn di weer ginnaaw jéey jëwoon ci six kilo ca nag même cause même effet maanaam li koy faral di waral mooy wéy di ko waral ñuy dundit mitit yi nga xamante ni ñu ngi koy wéy di ko dund yéenekaay bi di l'info teg ni ñu ne ngàmm nag mel ni yëf yi daa mënul woon a ñàkk maanaam jéemun ca dara fatalisme coupable le quotidien ne aw naqar dëgg la nu amee ca île amorphile bi nag ndax bus bi ñu duppee woon air jude jaabe moo saaraan këpp ci boy tolloo ngëñ saax talaata juróomi waxtu ci ngoon la bawoo jude jaabe yab ñeenti kiliyaan ginnaaw ab alte ca dungeel yab fa juróom-ñaari kiliyaan yeneen jël yoonu ndakaaru bi jëlaale yeneeni kiliyaan yu village yu île amorphile bi naka noonu it ñenn ci ñu bawoo woon Mauritanie ca pété la feese ñu ne la desoon as néew ci place ñu ne ay kiliyaan yi bokkee ci kiite ak suñcu jonge daal di ko jël waaye dogalu borom bi subhaanahu wa taala daal di yegsi nag démb diggante heures ak huit heures ci boy tolloog ngëñ saax yéenekaay yi di enquête ak Le Soleil yépp nag xamal ñu lu jëm ci wàllu blessé yi ne état bi mooy jël taxawu gi maanaam paj meeg yeneen wàllu tukki mi ci anam yu dëppawul ak yoon source aané ginnaaw réew Maroc Sénégal mooy ñaareelu ëpp sëlëbe yoon bi nga xamante ni fi la ndaw ñuy déparé ñoom aji tukki yi nag di ndaw yooyee yéenekaay bi ñu waat ci musiba yi leen di faral di fekk ci traversé désert bi tàngooru mitti aw m naka noonu ay addu kalpe ba dee biir géej moom ñenn ci ñoom ñuy faatu ci yoon wi ñuy faral di jël seeni néew di sànni ca ndox ma rax ci dolli muy fay nag ngir jàllale gi observateur moom dellu si ci ñuy delloo see dax la juróomi doomu Sénégal am ci ñoom ñu feebar am na ca koo xamante ni moom AVC la am mu ne daal di jaay bagaasam yëpp tegu ci yoon wi te it dafa mel ni noppeegul ngir balu ni mel keneen nepp aji tukki di daagwaale jàngoroy jabet di wax moom la mu daj nepp coono ci yoon wi am ca it ay seede yu tiis di ndaw ñoo xamante ni dañuy mujj faatu ci yoon wi ba duñu am pexe beneen lu may jël seen néew sànni ci géej ana lii lépp lu ko fi jar Maguette Gueye fondateur Car Rapide Prestige ci le mandat ne état bi ci boppam moo dekkilul yaakaar ci ndaw ñi l'état Relever la jeunesse des ak ndaw ñooñu ak ñenn ci ñoom bokk ci vingt-deuxième promotion projet Young African Leader Initiative yàlla di promotion bu nu bàyyilee ren star planétaire bi di Youssou Ndour observateur ne démb la woon xew bi ci ngoon ci Césac yéenekaay bi dellu si ci kàddu yi am solo yu mu fa jël moom parrain bi président Youssou Ndour di sàkk ci gune yi ñuy yëkkatee ndoor di tegandoor maanaam boole seen doole yépp ngir lenn li rek njariñal Afrique projet boobee nag président Youssou doon parrain bi ren ñu fàttali ni atum 2010 la ko président Barack Obama ngir ñuy waajal jeune leader yi